sax ma cay parce que le fait qu'ils disent aujourd'hui sur ce plateau que la famille Bongo a été renversée le Gabon reprend espoir les gens applaudissent ça dit que les gens sont fatigués les Africains sont fatigués de subir mm. et je parlais de ça le mot injustice ça ça ça reviendra toujours injustice bi bëri ci Afrique moo tax africain yi sonn et pourtant am nañu or am nañ jama mm-hmm. am nañu fer am marbre am nañu na on a tout on a le soleil on a l'eau on a on a tout ce qu'il faut donc pourquoi on ne peut pas être développé comment peut-on comprendre tey benn famille rester à la tête d'un pouvoir combien d'années. 54 54 ans le père. Ah. comment comment 40, comment 41 euh, ans et puis le fils le qui vient qui fait 14, 14 ans qui a ouais. voulu encore prendre ans donc comment est-ce qu'on peut expliquer ça comment est-ce qu'on peut expliquer cette chose. 54 ans au pouvoir c'est une chose est sûre ça se jamais au Sénégal parce que xam naa ne moom sénégalais yi. non loolu du ñu seetaan loolu. on a on a on a eu ay famille jiit bi on a eu Diouf. a non pendant euh, au moins une des dizaines d'années xam nga mais c'était lui c'était pas des familles. Mm. mais ce qui est sûr mooy injustice bi suñu njiit yi du ñu dund loo ba tax ñu jël gaal di dem ba tax ñu yenn ñi di sàcc. ñenn ñi di def lu dul doon ñenn ñi di turiyande du lu leen neex mais il faut que Afrique gestion bi changer mm on a un problème de gestion je dirais même pas un problème de gestion mais on, on, c'est c'est un peu égoïste je dirais yow da yor rek tu prends des milliards jàpp def sa poche ak sa famille nga bàyyi population bi à merci personne pour les défendre personne pour être là pour eux alors que yow mii di président bi yow mii di ministre bi yow mii député bi tu es l'employé du à la sueur de leur front di la fay mhm. avec les impôts mhm. donc ce sont eux qui doivent travailler pour nous mais boo xoolee Afrique ñoom ñoo en privilège yëpp c'est eux qui conduisent les les les beaux véhicules c'est eux qui habitent dans de belles maisons c'est eux qui voyagent pour euh, aller apprendre à l'extérieur ñoom ñooy voyager pour euh, dem faju ji et cetera et cetera donc la population africaine commence à se réveiller je n'encourage pas encore une fois ñuy def ay coup d'état parce que coup mhm. baaxul ci dëkk un coup bon pour un pays je n'encourage mais nag nit ñi am na fu ñu toll dañuy sonn ku sonn fippu moo tax man je le tout le temps il faut que jeunes yi partout en Afrique ñuy yeewu bu dee sénégalais nga bu dee ivoirien nga bu dee gabone nga bu dee waa Ghana nga wala feneen que les jeunes s'impliquent dans les politiques. Mmh, parce que y a que nous qui pouvons changer l'Afrique.